sëriñ abdul ahad mbàkke sëriñ abdul ahad mbàkke mi ngi gane àdduna ci atum 1914 ci dëkk bu sell boobu di njaareem keroog bi mu ganee àdduna mi ngi dëppoo bisub altine ñaar fukki fan ñett ci weer wi di weeru korite ci atum 1332 ci gàddaay gi dëppoo lundi 14 septembre 1914 ci dëkk boobu di njaareem doomu xaadim rasuul la ak kii di soxna mareema jaxate keroog bi mu ganee àdduna ba ñëw yëgal ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim di ko wax ne soxna Mariama Jaxate am na lii di gan seexul xaddim ma ngay wax ne am na yaakaar ci jëmm ji ganee àdduna bi mu amee ay bis la ko tudde Abdul Ahad seexul xaddim ma ngay wax keroog ne tur wi di Abdul Ahad de jëmm ji mooy ki ko njëkk a tudd ci kaw suuf képp koo xam ne nii nag yaa ngi wax tur wi ni mu waree te doo ko yàq yowmal xiyaam moo la ameel ak pay kenn rek la bokkal waajur wu jigéen ci mbooleem njabootu xaadim rasuul gi ñi koy wax sëriñ Sohaybu Mbàkke bi matee dal jàpp juróom-ñaari at la toll booba mi ngi tombeeg 1920 sëriñ tubaa seexul xaddim moo ko dalal alxuraan ci njaareem ginnaaw bi nag la woolu nijaayam sëriñ amsatu jaxate jox ko ko ci daara sëriñ amsatu jaxate jooju ma nga fa woon jàngal na ko lii di alxuraanul karim fa la nekk ba bind lii di kaamil bi bi muy bind kaamil bi waajuram xaadim rasul mi ngi fi kaamilu cheikh abdoulahad mbàkke waajuram tegu ci bët nijaayam ji di sëriñ amsatu jaxate da doon xaar yi bind ba noppi muy sëriñ tubaa seex saaliyu mbàkke ak kii di sëriñ soye bu mbàkke laataa ñooñu di bind na xaadim rasul génn lii di àdduna ginnaaw bi nag la nijaayam jii di sëriñ amsatu jaxate fo kaamilu sëriñ soye bu cheikh abdoulahat mbàkke ak kii di sëriñ tubaa seex saaliyu mbàkke yit ko seen mag ja cheikh mamadul mustapha mbàkke ci tundoodi sëriñ amsatu jaxate ma ngay xamal kii di cheikh mamadul mustapha mbàkke di ko wax ne lii la ma seen waajur wa santoon ci ñoom kon abdoulahat a ngi nii saali woo ngi ni ak kii di soye bu cheikh mamadul mustapha mbàkke cheikh abdoulahat mbàkke bàyyi ko foofu ci tundóo jox fa ku ñuy wax sëriñ maxtaar jëng guyaar mu wéel ko lii di am njàngam ginnaaw sëriñ maxtaar jëng guyaar nag joxaat nañ ko sëriñ habibu mbàkke imaam ci tuubaa mu tëralal ko lii di xam-xam ci atu 1932 nag la cheikh abdoulahad mbàkke ñibbisi waa tundoo di ci loxoy cheikh mamadou moustapha mbàkke ngir cheikh mamadou moustapha yar ko tarbiya ko man koo awale fa leen seen waajur wa awale woon booba nag cheikh abdoulahad mbàkke ci fukki at ak ñett rek la toll wala gën ngaa bari fukki at ak juróom ñaar cheikh mamadou moustapha mbàkke nag jël na kii di cheikh abdoulahad mbàkke fas yéene koo tarbiya ndax kat ndono loolu rek la leen fi seen waajuru tedd wa xaadim rasool bàyyil te moom itam loola ci lañ ko yar kon kat ñi nga xam ne nii tey jii bu ëllëgee buñ leen tuddee tudd ko fu mu jaar tàggat leen ci loolu ndax ndono loolu rek la waajuram wa amoon ci moom yaakaar ba bàyyeekoo lii di yoon wi kon jël na ko ci atu 1932 nag ngir yebal ko mu dem sanc lii di ay dëkk moom cheikh abdoulahat mbàkke nekk na ci loxoy cheikh mamadou moustapha mbàkke di magam di ko liggéeyal def ko sëriñ ak lii di waajur ba 19 1945 ci le 13 juillet ba cheikh Abdoul Ahad Mbacke buggul dara soxlawul dara dëgmal rek magam jii di du Mamadou Moustapha Mbacke cheikh Mamadou Moustapha Mbacke itam moo ko taxawal lii di kër sancloona ko ab dëkk itam ci atum 1932 muy dëkk bu ñuy wax daaru Rahman ñu gën koo xam ci daaru naar ginnaaw bi cheikh Mamadou Moustapha Mbacke joxaat na ko ndigal mu dem sanc dëkk bu ñuy wax kàddu bolloo ji ba tey ci at moomu di 1932 ci atum 1935 cheikh Mamadou Moustapha joxoon na mu dem sanc dëkk bu ñuy wax bat dem ñaan ci atum 1936 jox na ko ndigal mu dem sanc dëkk bu ñuy wax galongal ci atum 1944 dëkk bii nag la cheikh Mouhamadou Moustapha mujjee jox cheikh Abdou Lahad Mbacke ngir mu sanc ko wala dëkk bii la cheikh Abdou Lahad Mbacke mujjee sanc ci ndigalul cheikh Mouhamadoul Moustapha Mbacke ñu koy wax Daaru Salaam Bukki Barga cheikh Abdou Lahad Mbacke diirub lim nekk ci dëkk yi ko cheikh Mouhamadou Moustapha sanc loo lu mu am it kii di magam ji cheikh Mouhamadoul Moustapha Mbacke nekkit li ñu tudde ab baykat ndax si Abdou Lahad Mbacke xam na ne lii rek moom moo mën a maye dara ba tax na itim lii di këru Touba sax Cheikh Abdoul Ahad Mbacke musu koo nangoo wut ndax xam na ne bis dana ñëw lépp loo xam ne nii war na ci moom mu am ko waaye tarbiya rek mooy maye lépp mu topp ci ginnaaw magam ci Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke ba le 13 juillet 1945 Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke génn lii di àdduna Cheikh Abdou Lahad Mbacke seede lu am solo ci magam ji wax na de kii di Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke musta xonqal seenu bët mësta mësta tuur itam lii di seenu rongooj ñaari doomam yi di sëriñ mbàkke na ak kii di sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma ñoo ko magoon ci wàllu zaayir waaye kii di cheikh modou moustapha mbàkke mësta yónnee te fubul yónnee bi teg ko ci loxoom ndax xam na ne kat bu ëllëgee moom mooy nekk seen kilifa mu wéy nag jébbal léppam ñaareelu xalifa baayam di ma mu dul faadal mbàkke def ko nu raw sax ni mu defoon magam ji cheikh mamadul moustapha mbàkke ndax xam na ne war a topp da ngay toppee te def kii di cheikh dul faadal mbàkke waajur ak lii dib sëriñ mu dul faadal te wéy na di jox ndigal kii di cheikh abdoulahat mbàkke ngir mu dem sanc ay dëkk ndax yaakaar ja waajuram wa waxoon ci jàmbaar jiitim kon ñoom war nañ koo waajal ba bis bu yan bi nekkee ci kawam kenn du ne bàyyi laat accam kii di cheikh abdoulahat itim gis na magam yi ni ñuy liggéeyee ak itim niñ amee pasteef te lépp a ngi ci seen kanam waaye taxul ñu xool ko kon moom it la mën a def ci magam yi Mbàkke ay atam ci fanweeri at ak benn rek la toll kon tuut tànk la ba tey ci wàllu zaayir magam njëriñ Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke wéy na nag di ko jox ndigal mu dem sanc ay dëkk ci atum 1954 sancloo na ko dëkk bu ñuy wax Bayti Ja ci atum 1956 mu dem sanc dëkk bu ñuy wax Mbaraan Jeng Cheikh Abdou Lahad Mbàkke wéy nekk ci dëkk yooyu mu sanc di def lu mu bay yit yi di magam ji Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke mu def ci jumaa ji Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke itam xam na ne kii di Cheikh Abdou Mbàkke responsabilité bu bu yaatu war naa nekk ci ginnaawam bu ëllëgee te seen waajur wa waxoon na ne jëmm ji am na ci moom yaakaar te yaakaar jooju seexul xaddim amoon ci moom du deñ kon ala kulli haalin lii di xalifa général des mourides moom cheikh abdoulahat mbàkke dana ko nekk ngir yaakaaru seexul xaddim ja ñu mën caa teg bët të mu jël ko nag tàmbali ko miinale lii di taalibe yi yabaloon na ko mu dem tukki ci réew mi di Côte d'Ivoire ngir nemmeeku ji taalibe yi ci at yu mujj wala ci weer yu mujj cheikh Mamadou Fadal Mbàkke itam wowoon na kii di cheikh Abdou Lahad Mbàkke ngir di ko wax mbooleem ëtt boo xam ne ni seexul xaddim la fa nekk moo ko fa def nafa fa cheikh Abdou Lahad Mbàkke dem ngir nemmeeku leen ñooñu itam xam ko kon cheikh Abdou Lahad Mbàkke bépp ëtt boo xam ne ni seexul xaddim moo taal taal ba ci atum 1967 ba 1968 cheikh Abdou Lahad Mbàkke dem na ba ci sab dëkk ziar la booba cheikh mamadul faadal xam na ne mu ngi tàggatoo te cheikh abdoulahad mbàkke lii di yen bi moo ko war a yanu kon nag na ko teel a xamaleeg taalibe yi ak lii di cheikh si cheikh abdoulahad mbàkke kon ku ñu waajal la moo xam ci ay magam di ay xalifay waajuram wala waajuram ci boppam ndax kii di sëriñ moor absa loo sëriñ tubaa seexul xaddim mas na koo jox ab ndénkaan di ko wax ne moor sa ndénkaan lii ma la jox de dencal ma ko fu ko nit du bis dana ñëw ma laaj la ko du la fi fekk yow Mor Absa Lo man mi di xaadim rasul mi la ko jox duma ma fekk waaye boroom dana ko jël si su boobaa nag ki nga koy dénk na nekk ko am fulla bu nga ko jox na kuddul boroom te booba Cheikh Abdou Lahad Mbacke ganeegul lii di àdduna sëriñ Mor Absa Lo dund na fi ba làqu sëriñ tubaa Seexul Xadiim dund na fi ba làqu Cheikh Modou Moustapha Mbacke nekk na fi ba làqu Cheikh dul Fadal Mbacke nekk na fi ba làqu bi sëriñ Abdou Lahad Mbacke toogee xalifa ci atum 1968 la dem njaareem ñetti yoon di laaji lii di ndénkaan la ka sëriñ moor sa loo joxoon ndénkaan la di sëriñ saaliw loo may doomam sëriñ saaliw loo tànxamlu na ko ay yooni yoon ndax kat seexul xaddim waxoon na sëriñ moor absa ne ko ki nga koy jox na nekk ko am fulla ba ndénkaan li na am fullay bu mu ko jox ku dul boroom moo tax bi Cheikh Abdou Lahad Mbàkke ñëwee laaj ko sëriñ saaliw mu tànxam lu ko te ñetteelu yoon ba nag la koy wax ni saaliw soo ma ko joxul ma wooka la ko joxoon mu laaj la ko nga jox ma ko sëriñ saaliw loo di ko wax ne kooka kan la mu ne ko xaadim rasuul ma woo ko mu seede ñu ñun ñett ngir nga jox ma ndénkaan la ci la sëriñ saaliw loo nag doog a jóg ubbi gaal nga jox ko ndénkaan la kon cheikh abdoulahad mbàkke ku ñu waajal la ndénkaan loolu bi ko sëriñ saaliw loo joxe kii di cheikh abdoulahad mbàkke ma ngi koy wax ne saaliw de war ngaa sant suñu borom bu baaxa baax ndénkaan li ku ci tegoon bëtam te nekkul ku sëriñ tuubaa mbàkke defar loo baax baax da ngay dem sawara sëriñ saaliw loo moomu waajuram di sëriñ moor absaloo tudde na ko ñaari doom ba toog nii toogaayu sëriñ moor absaloo moom lañ ko tudde baneen bi itam moo ci dëkk bi daaru salaam wanaar bi muy doog a toog xalifa booba xalifa sëriñ Alioune Seck bii di sëriñ Abdou Jama Seck mooy ka fa toog xalifa sëriñ Abdou Lahad Mbàkke itam dem na fa yàggu fa sax gën ngaa bari fanweeri minute la fa am dugg ci barabub sëriñ Alioune Seck wanaar njaboot gi bëggoon mu yend mu leen di xamal ni damay delluwaat Tuubaa ndax dafa am lu ma doon jël si rek ci sëriñ bi lii itam jaar na fi kon Cheikh Abdou Lahad Mbàkke ku ñu waajal la laata muy toog xalifa ndax xaadim kat fàggul na doomam ji Cheikh àdduna bisub talaata juróom benn fan ci weer wi di weeru ut ci atum 1968 Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mi ngi toog xalifa bisub àllarba fukki fan ak benn ci weer wi di rakkaat ji gàmmu ci atum 1388 ci gàddaay gi dëppoo muy mercredi 7 août 1968 cheikh abdoulahat mbàkke ñëw nekk nag ñetteelu xalifa xaadim rasuul murit yépp nag di ko xoole xaadim rasuul mu xam ne yan bi benn la na ko magam ya yore woon rek noonu rek la koy doxale cheikh abdoulahat mbàkke xam ne itam bépp bépp doomu aadama wala bépp murit bu wànneen tuufaay bi koy faj moom mooy ki ko war a jënd ci gàttal daal bépp jafe-jafe bu murit am cheikh abdul ahad mbàkke mooy ki ko war a faj ndax kat léegi moom lañuy ñuy xoole xaadim rasul cheikh abdul ahad mbàkke sukkandiku nag ci téere bi waajuram tedd wa xaadim rasul bind muy mat matlabul fawzeyni def ko mu nekk liggéeyam ba ci gaa yu bari daa ko wooye le bâtisseur muy ki nga xam ne nii mooy tabaxkat bi mu sanc nag dëkkam bi mujjee sanc ci kaw suuf belal ci atum 1970 ci atum 1970 boobu la taxawal li ñu tudde bibliothèque xaadim rasul ci boobu ba tey lii di daayira bi ñu njëkk a taxawal ci réew mi di Allemagne ci lañ ko amal ci atum 1974 ci lañ taxawal mouvement des étudiants mourides Cheikh Abdou Lahad xam ne ab liggéey moom fu mu jaar am ay daayira yu ko ci jàppale mu wéy di taxawal ay la bul daayira Matlabul Fawzayni lii di Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim doon na ñaan lépp loo xam ni nit soxla na ko ci àdduna bi su ñëwee Tuubaa fekk ko fa te loolu kat lii di ab marché itam baax na ci Cheikh Abdou Lahad Mbàkke yeesalaat lii di marché Ocass ba mu gën a mucc ayib marché Ocass bi firee ginnaaw bu ko cheikh abdou lahad mbàkke yeesalaatee ci le 24 mars 1977 somme bi mi ngi tolloon ci ñetti téeméeri million ak fanweer boole koog nag yokk yeneeni marché ci dëkk bu sell bi di Touba cheikh abdou lahad xam ne murid yi itam dañoo war di génn lii di Touba fu ñuy dal itam dañ koy bëgg te léeg-léeg mu dem ci dëkk itam tumranke mu xam ne itam liggéeyal xaadim rasuul baax na lool foofa mu def nag lii di kër sëriñ Touba yi mu taxawal kër sëriñ Touba gi nekk ci Touba ndax sëriñ tubaa seexul xaddiim kër gim amoon fi lañ samp jumaa ji ci li ko dale ci xilaaf ak cheikh amadou moustapha ba ci xilaaf ak cheikh abdou lahad mbàkke sëriñ tubaa moom amul woon kër ci tuubaa ndax këram gi ci lañ def jumaa ji cheikh abdou lahad moo indiwaat kër seexul xaddiim ginnaaw kër seexul xaddiim ci tuubaa mu taxawalaat kër seexul xaddiim ca ndakaaru taxawalaat kër seexul xaddiim ca pir pekkees Thiès Kolda Fatick Diourbel Rufisque Pikine ak kër Samba Kane seexul xaddim loo ko liggéeyal te du alxuraan itim des na mu taxawal kër gi ñu tudd kër daaray kaamil toppaat mag ñi lépp loo xam ne mbindum seexul xaddim la moo xam lettre la moo xam alxuraan la wala lenn ci lu mag ñi bindoon ñu denc ko fa ndax kat bis dana ñëw ñu soxla ko kon bënn nëga ni nit ñaa ngi xool jëfi cheikh abdul ahad mbàkke jooju ginnaaw kër sëriñ tuubaa yooyu bu ko cheikh abdul ahad mbàkke taxawalee ba noppi def nag lu am solo ci kër seexul xaddim seexul xaddiim yi kat moom mi ko tabax moomu ko képp ku fi nekkal seexul xaddiim yow yaa yilif kër yow yaa ko moom cheikh abdul ahad mbàkke woolu ay kilifa ci dëkk bi di tuubaa ngir ñu def seede ci wax jooju mu wax mu woolu greffier bu njaareem ci jamono jooju mi ngi tuddoon bayti faati dem moo nekkoon greffier bu jurbeel cheikh abdul ahad mbàkke woolu ku ñuy wax sëriñ amsatu mbàkke doomu maam cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru la sëriñ doomu sëriñ amsatu la ak sëriñ Muudu Maamun Ñang doomu sëriñ Afiye Ñang la ngir ñu def seede ci wax ji mu wax bisub seede ba moo nekkoon le 27 octobre 1972 si Abdou Lahad Mbàkke ne greffier bu Jurbel Beyti Faati Dem ak ñi nga xam ne ni tuddoon naa leen di leen wax ne kër Sëriñ Tuubaa Mbàkke yi ñu taxawal de bis bu ma fi bàyyi ko lii di përngalub saabu sax bu ko fa nit laal nañ fa lépp jébbal ko ki ma wuutu ndax ñu xam ne alalu ko baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim la kon jaajëf Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke ci atu 1972 lay doog a am kër gi mu dëkke Sëriñ Abdoulaye Fall Ndar mooy ki ko tabax ci atu 1979 sëriñ Abdou Lahad Mbàkke na xam ne dëkk bi di Touba day màgg te dëkkub diine la dëkk boo xam ne nii kilifa gu làqu fi nañ la fas yéenee denc kon kat yenn yi jaaduwul ñu di ko fi def muy lu mel ne rumbaay bi ak mbumbaay bi si Abdou Lahad Mbàkke tere lépp loo xam ni xeetoo na ci wàllu caaxaan dëgg la tux la yoote dam yee ak yeneen ak yeneen ci 1979 ba ci 1980 mu am ñenn ñu dëgër bopp di wax ne lii Cheikh Abdou Mbàkke bëgg wax ko yomb na waaye jëf ko lu jafe la Cheikh Abdou Lahad Mbacke itam wéyaatoon na di def ay déclaration demoon na ba wax ne képp koo xam ne ni yaa ngi dëkk Mbacke Bawal tey jaay lii di sàngara wala carte même booy jaay leneen lu jullit war jëfandikoo bu ko benn murit laal nañ ko boycotté ñu lu déclaration bi ci Cheikh Abdou Lahad Mbacke defoon ngir di xeex ak ñiy xeex ak moom ci tere yi mu def. bañ a wax dara bañ dugg seen kër def dara bañ leen a yàqal dara bañ rek bu yaakaar ko yaakaare bu loolu may bàyyi léegi daal li dalee ci rëkkilaat ba ci naan di gën a suufe te am alcool yépp lu ñu ko la li ñu fi bàyyilu la yéen ñëpp maa si leen fi képp koo xam ne seen nag dana ko fi def nag ak fu mu mën a dëgg ba fas ko fi yéene def bu ngeen ko añale rek kon déclaration boobu la ci Cheikh Abdou Lahad Mbacke defoon ci atum 1980 waaye nit ñi ba tey rek dëgër Cheikh Abdou Lahad Mbacke nag woolu ñum séqal xaadim rasul muy doomu Serigne Touba Seexul Xaadim yi fi nekkoon jamono jooju muy Serigne Touba Cheikh Salihu Mbacke Cheikh Abdou Khadir Mbacke Serigne woolu na procureur bu Jurbel di xamal doomu seexul xaddimi ak procureur dafa bëgg ñu seede ne lii muy tere lu ko yitteel la doomu seexul xaddimi yi ma limaloon na kenn ku ne signé woon nga ne li seen mag ji bëgg ànd nañ ci procureur itam bu Jurbel seede ne ne kuñ ci jàppitim dañ laa war a tëj lii di kaso bi lii nag ñu ko amal ci bisub le 18 septembre 1980 bisub keroog itam kii di Cheikh Abdou Lahat Mbacke defaat na ci déclaration ñu teewlu ko waxoon naa leen ci ne fekkee fekk bu kar ma xamal ne waxoon naa leen ko waxaat naa leen ko teel si ko waxati léegi am naa pas-pas bu weesu wax ji ngir dëkk bi nun rek moo ci suñu war a gor li fi borom di bañ feeg nuy nooyi dañ ko koy bañ li mu fi bëgg feeg nu muy nooyi dañu ko koy bëggalee képp koo la ak xeeti po yaa ngi ko fiy defati booy waraati si yoonu la ñuy defanteeg yow teg nañu ci suñu bakkan képp ku ko fi defati dal du loon moom baati moom ba nga jëm ne lu dëggu si man la loo xam ne bëgg naa mu wóor leen ne tere gii ma koy tere tere inu tiraanga laa ko tere tere inu sutura laa leen ko tere ku loolu soxalut nag ba nga ne da nga ko fi def ku mu doon nag ci àddina ay ta booye boo muy tey bu dee tey li siy juddoo dana judd tey lu jokk loolu rek laa leen bëgg a xamal képp koo xam ne kii nag ne jot li gii ma la koy jot ni jot nga ci ba noppi te defe ne war ngaa mën a def leneen nag ku mu mën a doon bu boobaa da nga xam ne sàmm ma fi bàyyi wattoo ma fi bàyyi ay yooyu rek bàllim la damay wax ak dégg ngeen bu baax ni Cheikh Abdou Lahad Mbacke daanelee ay kàddoom muy samay wax ak ngoo te loolu la amoon lu muy digal murid yi bari na nag ñu tëw woon te loolu dal na leen ñu teg ci ñaari at muy atum 1982 Serigne Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacké defaat beneen déclaration mu jëm nag ci yokkub jumaay Touba ji bisub àllarba fukki fan ak ñaar ci weer yi di weeru mai ci atum 1982 la Cheikh Abdou Lahad Mbacké njëkk a woo murid yi ngir ñu indi nag seen addiya ngir mu leen di wax ne itam dafa bëgg a yokk lii di jumaay Touba ji 1 milliard 500 lañ soxla woon ñu teewlu woote bi ci Cheikh Abdou Lahad Mbacké defoon. ñu jëm ci ci a a def yokk buñ ci war a yokk goo xam ne jii nii seen a daliku ci ñu ne li mu bu yokk bi ab la woon ak lii di palaasu jullikaay yi ñu ngi ko xayma woon ci lu tollu junniy nit ak ñaar téeméer mën nañ ciy jullee ci yokk ba ay fan lañ ci teg murit yi joxe sax lu kawe njort mbooleem réew mi ba tax sax ñu doon bind ci wàllu mi mi jamono jooju waaru bay wax ne murid yi de heure bu leen neexee sax mën nañoo daaneelub état mën nañoo yëkkatib état Cheikh du Lahad Mbacké itam jëlaatoon na rajo ba ngir dëggoom wax ne lim soxla woon sax li mu jota ko ëpp ñu teewlu waat nag déclaration bi mu ci def ba ma koy tàmbali dama leen a waxoon ne def naa ci téeméeri million léegi tey faf junni million nekk na fi am na benn teel bi ne bu bu ma wax ne daf koy mottali kon nag ngeen yëg ne junni million ak juróomi juróomi téeméeri million yi ñu leen waxoon jeex na maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant maa ngi leen di xamal ne sëñ Touba rek la no am na nu ci moom liggéey bu àgg nañ tàmbali beneen feeg ñuy dem jëf loolu dong laa doon woote ginnaaw na muridi seedee leen wax ne itam nañ wéyaat ci yeneen liggéey kon jumaa ji ñu ngi ko 1988 ca 30 septembre ba dëppoo woon ak mu nekk bisub ajjuma fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ci atum 1409 ci gàddaay gi Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mi ngi xamal muridi ci appelu màggal gi di leen wax ne jumaa ji sax éggul dese na lii di ab kocc koccal waaye ajjuma ju dajeeg bésug màggal yombul kon nag sa fait location ñu ubbi waale ci lii di jumaa ji kon bi ñuy immigré jumaay tuubaa ji ci liggéeyub cheikh abdou lahad mbàkke jumaa ji éggul waaye na ngir doon dab ajjuma ju tombeeku màggal moo taxoon ñu immigré ko cheikh abdou lahad defoon na ca ab déclaration ñu teewlu ko ko bi focc ko ginnaaw déclaration boobu Cheikh Abdou Lahad Mbacké def defan na beneen déclaration di naqarlu bu baax a baax nag tur wi di xalifa général biñ koy woowee ndax kan nee na moom kelkeliwul ci moom xalifa général luy soppeeku rek la waaye moom daal bu sañoon liggéeykatu xaadim rasool lay doon ñu lu déclaration bi mu ci defoon ngir di naqarlu xalifa général giñ lañ koy woowee. ma ñëw ci sama mbirum bopp man Abdoulaye xamal leen ne man de am na tur wu ñu may woowee woo xam ne tem tëriwul ci man neexuma it dama ci amul benn pexe rek tur bi mooy wan mooy xalifa ji ñu may wax ngir xalifa dafa dul dara boo ko seetee ngir lool bi ku nekkoon fi barab nekkatu fa la nga fa fekkee xalifa loolu nag man nay ku ne mën naa mel lu ne mën nay lu ne ba ngeen tiiree fa xalafa min bahdihim xalfun adaa'u salaata wa tabau sahawaati fa sawfa yaa xawan xayan ñu ne war a xam ne xalifa dootu dara man day ci ñu ne may xalifaam bu fekkoon ne ma bëgg la ma yàlla defal du ma doon xalifaam naayibam laay doon naayib de ci natt bi mooy ko wuutu yilimaan te it ku ku ne xam ne ne fa lay taxaw te bu ñu déggee muy waxee danañu xam ne li yilimaan daa wax lay wax bu fekkee te waxatu ñu dégg déggu ñu baax mi ñu xam ne la ma doon yàllu rek la yàllu loolu ma gënal li mu waxu ma ne bu ma ko mënta am nag maa di jaamu yàlla bu mu nangu ak jaamam di taalib sëñ Tuubaa mu te sewal ni ci sëñ Tuubaa ni mu sewee ci rasulullahi te suñu diggante yéen te yéen ni mbàkki sëriñ tuuba seexul xaddiim taxawal na fi nag lii di postu gendarmerie ci atu 1985 ci atu ba nag commandant bi fi njëkk a ñëw ñu koy wax adjudant chef mi ngi tuddoon Pape Ndiaye la njëkk a jël fonction ngir jàppale Cheikh Abdou Lahad Mbacké ci wàllu kaaraange ak tere yim fiy tere ginnaaw poste de santé bi fi nekkoon ci Touba 28 Cheikh Abdou Lahad Mbacké moo fi indi lii di hôpitalu Ndaamaatu ci ndimbalul président de la république bi fi nekkoon Abdou Diouf mu xam ne murid Fall poste bi fi nekk itam ci xilaaf ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacke la fi ñëwee ci atum 1976 Sonatel bu Touba ci xilaaf ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacke itam lañ ko immigré ci le 14 janvier 1988 directeur bi fi njëkk a nekk Alassane Dialy Ndiaye la doon wuyoo Cheikh Abdoul Ahad Mbacke itam xam na dëkk bii di Touba mar def na fi lu ne doomu aadama te moom sax xamoon na ko ndax ñettali na ko lu bare bari ci ay waxtaanam mu taxawal nag ay forage ndax xam ne na kat ci xasi dëgg yi Abdi ma nga fa doon ñaan ndox fukki forage ak ñett taxawal na ko ci atu 1972 ba atu 1988 forage bi Cheikh Abdoul Ahad Mbacke njëkk a def ci Touba mooy forage ñu ko tuddee tam nekk ci yoonu belal wi tolloog fi garage yu belal bi nekk ñi ngi ko inauguré bisub alxemis 25 mai 1972 alxemis 25 mai 1972 ci teewaayu président de la république bi fi nekkoon di Léopold Sédar Senghor ak premier ministre mba di Abdou Diouf ak mboole mboolem ministre yi nga xam ne ni ñoom ñoo fi nekkoon jamono jooju Touba nag am lii di ñaareelu forage am ñaareelu forage bi Cheikh Abdou Lahad Mbacké defar mooy forage yu Baxdaat ñetteelu forage bi mooy forage yu Aynu Rahmati ñeenteelu forage bi mooy forage yu Ñànka juróomeelu forage bi mooy forage bi ñu tudde f moo nekk ci yoonu Daaru Marnaan wi juróom benneelu forage bi mooy forage bi ñu tudde forage yu Njuga Kebe juróom ñaareelu forage bi mooy forage bi ñu tuddee bu Ndaamaatu juróom ñetteelu forage bi mooy forage bi nekk nekk saam juróom-ñeenteelu forage mooy forage bi nekk Touba Belal fukkeelu forage bi mooy bi nekk Guy Mbaam fukkeelu forage bi ak benn mooy bi nekk Daaru Raxmaan fukkeelu forage bi ak ñaar mooy bi nekk Daarul Xaddiim fukkeelu forage bi ak ñett mooy bi nekk Touba Murit ci wetu bustaanu Cheikh Abdou Xaadir Mbakke kon forage yi yëpp ci lul Cheikh Abdoul Ahad Mbakke lañ leen taxawale ndax kat xam na ne murit yi dañoo war a naan Cheikh Abdoul Ahad xam na ne itam jullit yi rawatina murit yi dañoo war a jàng ndax lii di xam-xam itam ko um jëmpale mu taxawal université bu Touba université bi moo nekk ci corniche Madiana bi mu yàkkale itam lii di quartier Touba yi ba mu gën a muxtaare courant bi itam mu dolli ko lu ëpp ci Touba itam ci wàllu godron Cheikh Abdou Lahad moo fi def ndax xam ne na murid yi dañoo war a jaabante corniche bi ginnaaw ba ko Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke titre foncier Cheikh Mamadou Fadal natt ko Cheikh Abdou Lahad Mbacke mooy ki ko godronge ci atu 1982 ba 1986 Cheikh Abdou Lahad Mbacke ku dëggu woon ku am fulla la woon la femme rajo bii di rajo senegal da doon bundu xataal lii di murit yi leen wax wax yu tegg nu wut si Abdou Lahad ginnaaw bu mu yëgee loolo defoon na ci déclaration bu am solo di xamal kii di Cheikh Abdou Khadre Mbacke di ko wax ne nañ def na seen waajur wa tedd wa doon def ndax dëkk bu nekkaat képp kuy ab sëriñ am nga fa représentant bu ñu soxlaatee murit yi nañ war ay fas ngir yëgle murit yi ñu waxaat murit yi la xalifa yi soxla bu fekkee ne nag rajo bii di rajo Sénégal soppeekuwul wala tëgut ñu nekk ay citoyen tegu leen lii di ay sénégalais moom waat na ci seexul xaddiim ne lii di kàddoom moom kenn duutu ko dégg ci rajo bii di rajo sénégal kon fulla ku ko amoon la ndax xam na ne yaakaaru muridi mi ngi ci loxoom cheikh abdul ahad mbàkke defoon na déclaration bi mu toogee xalifa général des mourides di wax ne bépp murid bu dëkk tuuba sa pujum néeg yow malxiyam moo lay seedeel sak murit quatre-vingt mille parcelles la nattoon jamono jooju quatre mille parcelles yi nag cheikh abdul ahad mbàkke defoon na ca déclaration duñ la ca laaj dara lii di chef de village yi wala chef de quartier yi nag nañ bañ laaj nit ñi lempo ndax nit ku dëkkagul mënugut a fay lempo te kër yi itam képp koo xam ne indi nga ay bagage ci lu tolloog at danañ la ko may bu at passé nag bu keneen soxlaata dëkkoo ñu nangu ko ñu teewlu déclaration biñ ci defoon keroog bi mu nattee quatre-vingt mille parcelles yi ngir séddali ko murid yi. mu def ko bi ba jottali ko ñu jox xam ne ñu ku dëkk fi barab la ko def si fayu ku sa njaboot nag war ngaa dund def sa waarigaal yi lamp ak waarigaal yi war ci yow ca ma ngi ca doon dolli ginnaaw tere googu mu doon tere chef de quartier yi ñuy laaj lemp ku dëkkagul tegoon na ci itam ñi fop seeni pàkk di ko jaay muy wax ne pàkk yi kenn muumu ko ba di ko jaay képp koo xam ne nii nag jaay nga pàkk la la cay dal ci wàllu musiba du nekk lu muy wax waaye da nga ci teg sa bët ñu teewlu déclaration bi ci seex Cheikh Abdou Lahad Mbacké waxoon ci njaayum pàkk yi ñu ngi ñëw ci réew mboolem lu aju ci Touba loolu ci la képp koo xam ne waaye yaa ngi def di defante suuf di ko jaayante te defe ne war naa mën a sotti fa saasa da nga xam bu baax a baax a baax ne loolu loo xam ne lii ñu ko topp ko def ca la la ngeen ko war a def gar saa mën a am këyit bi ngeen mën a moom a suufa kon fii nga xam ne dañu ko moomale seen Tuuba ngeen defe ne war di ko juree di ko di ko defante na la loolu ak doyate rek la boo xam ne ñu fi nag mënuñu ko soxal defaatoon na beneen déclaration moom Cheikh Abdou Lahad ci tiwo yi ñuy bënn wala branchement yi ñuy def jëmale ko ci wàllu ay robinet yi nekk ci biir kër yi nit ñi nu leen neex lañ ko doon dagge loola itim metti woon na Cheikh Abdou Lahad Mbacké ba mu waxoon ne ku soxlaa am robinet sa kër nanga dem préfecture bu Mbacké ñaan demande su matee fukki nit ñoo wutal la robinet sa kër ñu teewlu déclaration bi mu ci defoon ngir di bañ ndox yi taa ci mbedd mi. kon nag santaane nañu ku bëgg see ko bëgg mën a def da ngay boobu it su demee yónnee ko ñett ba ñëw ñu yónnee ko service service ba yabal ci ñoo xam ne ñoo leen di defaral ni nga ko war a def. defal ko sa bopp lu ñu tere la dañuy sàcc eh, village bu ne ña fa ne dañu leen jox ndigalam ñu di ko képp koo xam ne ci sa nga jéem ba defal ko sa bopp laa si jëm te daañu ko jëfante yow ku soxla daal ku la ubbi ndax loolu jëfee bindal bataaxal def sa demande saa boo xamante ne damaa ne dajaloo na ba mat fukki demande dana téléphoné bu ñu bu ñu ñëwee indi ñoo xam ne ñoo koy defaral mu fob rakkam jooju Cheikh Abdou Khadre Mbacke def ko imaamu Touba ndax cheikh mamadul faadal mbàkke moo nekkoon xalifa général des mourides nekk lii di imaam ci août 1968 la cheikh abdou xaadir mbàkke nekk imaam ci ndigalul magam ji cheikh abdul ahad mbàkke te xam na ne ku faatu ñu ne nañ yóbbu Touba te arméer yii kat yàgg-yàgg day fees la cheikh abdul ahad mbàkke xalaatoon nag egsi na ndax jamono ji armeer yi mu fi tolli waatoon ci nekkinam te arméer yee ñu tudde bàqiya la mu jortoon naxu ko cheikh abdul lañ nekk te itim bërëb boo xam ni war nañ fay yónnee wala ñu fay jot xaalis itim dafa war a mu taxawal lii di banque lii di autoroute bi itim Cheikh Abdou Lahad Mbacke mooy ki ko fi def ndax xam ne ne kat murid yi dañoo war di dem ak dikk lii di commune rurale bu Touba itim ci xilaafaam la amee ci atum 1976 Cheikh Abdou Lahad Mbacke nekkoon na ku am fulla ba tax na sax daanañ ko wooyu tur yu baree bari ñu ràññee ci tur yooyu ñàkk caaxaan ñàkk caaxaan googu na nangu lenn lu metti murid yi murit bu wànneen tuufaay ba koy faj cheikh abdoulahat mbàkke mooy ki ko war a laaj ci pharmacie bi jënd ko am na ab daayira buñ fi taxawaloon ci atu 1985 tudde ko jeune murit te ay étudiant taxawaloon ko ci université bu ndakaaru keroog bi cheikh abdoulahat mbàkke xamee ne daayira bii daal wuute nag lool moom li mu yaakaar ci njàngaleem xaadim rasul dafa wax ne buggutut a gis sax daayira boobu wala kenn ku koy nuru nuru nurulu mu def ñaari seede ci daayira ba di wax ne daayira ne baat biñ ko tudde la jaaxal na ko lool ndax baat bi làkku tubaab la waaye bu doone ci wolof yi ñu nàmp itam am na lum fay tekki mu ne bu fekkee ne ci tubaab la ndax jeune murit lañ ko tudde woon mu ne ndaw de bu lekkee ba suur mun munta sàmm diineem fa rek lay xalaat te sëriñ tuubaa tël ta foo tël ta folu bi ci des nag moom mooy sën ci wolof lu waaye soxlawul rek nga fay sànni te seexul xaddiim taqalewul dara wala ñàkku te bëgg dara ba lum am xëpp ca kon nag bu fekkoon ne tudde nañ yi nga tudde wuñ ko ko masaalikul jinaan mi ngi fi te tudde wuñ ko ko ñoom nag jaani ñàngoor la leen jàppe woon daayira bu wéyoon ci yoon wi musiba rek la koy jural alhamdulilah nag la wax bi mu ko tasee kon responsabilité ku ko daa jël la su ko matee jël kii di sëriñ Tuuba Cheikh Abdou Lahad Mbacke defaatoon na beneen déclaration di laaye biir lii di murid yi nga xam ne nii yeneen ci seen moroomi murid dañ leen di nax di leen wax ne bërëb bi bërëbu la wala ñu leen di joxum ndox ba sëriñ Tuubaa Cheikh Abdoul ma nga doon xamal yeneen murit ya yeewu ci loolu li leen wax ne ay nax kese la te loolu itam bëgg na mu jóg ci dëkk bi benn ndox rek moo fi am mu ñuy barkeelu te kenn jaayu ko muy ay nu raxmati ku leen man di joxum ndox nag ak fu mu ko man di jële ak wax jum leen man di wax ca basee ba dong nag la ko tànqe jox leen ko ngalawaay bu leen ko jëfandikoo te bërëbi ziyaar yi fu dut fiñ denc seexul xaddiim du jumaa ji nekkul yeneen barab yiñ denc gaayu baax yi ay nax kese la murit yi nag loolu itam dana ko xeex ba mu jóge ci dëkk bi ñu teewlu déclaration bi ci Cheikh Abdou Lahad Mbacké defoon ngir murit yi yeewu ci ma bëgg nag yéen ñi nga xam ne dañuy ñu ñëw yëpp siyaare rek liñ tax a jóg ak bëgg lu baax nag kenn bañ leen a mën a nax wala kenn bañ leen leen a mën a tooñ ku ngeen ci gis mu yorum ndox naa leen ndoxum barkeelu naa al te barkeelu ku mu doon ci baaj ba rek ko tënk joxale ngeen lii ko tan ku leen fi naa barab bi suñu siyaare la def dara furul barabu Sëriñ Tuubaa bi ak yeneen barab yi nga xam ne ay kilifa fa ne furul soosu ñu war leen leen barab siyaare bu tay la amut ndox ñu fi barkeeloo menn la fi

xam ngeen ni lii di jumaay Touba amoon na ay garab yu ko wër waaye Cheikh Abdou Lahad Mbacke defoon na ab remarque di seetlu na daal ñu ci bari grand place lañ bëgg a def buntu jumaa ji mu daggulu lii di garab yi wër jumaa ji ndax caaxaan ja lay bañ mu xam ne waajuram wu tedd wa demul màkka waaye nag fayee ko ci murit yii yóbbu leen màkka dana taxitim waajuram woo bég li Cheikh Abdou Lahad Mbacke yóbbu ci màkka kenn xamul nu mu toll turam itam daanañ ko ci wooye boroom fulla ji daraja joo man di am ci réew mi wala ci àdduna bi soo ñëwee soo jàkkaarloog moom soo deful lu dul yoon mu wax la ko ndax xam na ne kat mooy xaadim rasuul ci kaw suuf fulla jooju sax bisub keroog bi Léopold Sédar Senghor ñëwee di ko tàggu ngir di ko xamal ne day bàyyi lii di réew mi jox ko président de la république ab du Diouf ngir mu wuutu ko tàggoo gi mu doon def ci këru diine yi bi ñëwee ci Cheikh Abdou Lahad Mbacké mi ngi koy xamal ne bis bu la Sénégal yi santee benn yoon yow war nga leen a sant fukki yoon ndax yàgg nga fi te laa bundu xotaal musuñoo xool bang bi nga toog soo demee bay tàggatoo war nga leen a gërëm ba tey ci fu fulay cheikh abdoulahat mbàkke dafaatoon na beneen déclaration ndax dafa am ab daayira bu dëkkoon dëkk bu ñuy wax njëgëj daayira boobu président daayira ba dafa lekkoon lii di xaalisu daayira ba ba waa daayira ba nag doon ko ŋàññ bindoon nañ sëriñ tuuba cheikh abdoulahat mbàkke lii di lettre ngir mu xas lii di président daayira ba wala mu dal ci kawam sëriñ tuuba cheikh abdoulahat mu ngi leen di xamal ne moom ay bi boppam doy na ko te na mujj tey nag ab daayira wala kenn di ko bind ab lettre di ko wax mu xas nit ku yaakaar ne nag addi yi nga koy jox xaalis boobu war naa tax nga jort ne lu la neex nga def loo ko ko ko ndax nga sa bopp moom li muy dunde sëriñ tubaa seexul xaddim moo ko ko jox ñu teew teewlu déclaration bi ci cheikh abdoulahat mbàkke defoon te waa daayira ba bëggoon mu leeralal leen ginnaaw bu jotee leetar ba lii la leen cheikh abdoulahat mbàkke tontu benn bataaxal boo xam ne ay nit ñoo koy dund ñoo xam ne ñoo dëkk ca njawal mën naa ko bind soogu ci turu kenn waaye ma di leen xamal ne nag la leen a bind ci laajte ba digal yi ma ko ñun waaye jot li ma aw bi nit nag ak naqar woo am ci nit ak melaw nit kooku ma yuma ko kenn kenn kenn ku yàlla bind ci sama bopp yow nag Abdoulahat sama aw bi bopp day na maa xalaat day na maa yittewoo day si aw bi ci kon nag ku am loo may defal ba tax nga defee ne loolee ngay def muy jaar ci man dong war naa tax nga mën maa wax lan la loo xam ne sama nit wala koo dégg ku mën di doon ci kaw suuf rek mayu ma la yéene wu ma ko kenn man daal sëriñ Tuubaa laa fi nekkal ku yaakaar sëriñ Tuubaa nekkal naa la ku dara dara waaxal a xam waaw lu mu di xalaat naa ma defal nangam waxal nangam ñii nañu nangam loolu la weesal naa ko sama bopp te dara mënu ma cee dellu kon nag fépp su mbooloo mi di xam ne sëriñ Tuubaa la ñu ko bu dee amee wala coow amee ko sant naa leen ñu bàyyi ko ngir loola njëriñ li ko tuddee ñu njabootu sëriñ Tuubaa ji ñu leen boole laay def loola leen tasaare ma si man bokkul xalaat bu ko àndal te la ngay wax borom fulla ji jàmbaar ji di Cheikh Abdou Lahad dëkk bu sell bii di Touba ñaari mètre yoo fi dox ci gàttal daal gis lu mu jëf ndax kat xool ba moo yaa lii di suñ mbokk yeneen tarixa yi Cheikh Abdou Lahad Mbacké amu woon xajj ak seen ci xilaafaam bépp tarixa wala bépp xalifa ci nekkinam ñëw nga ci tuubaa gi teg fi tànk lii di ay turandoo itam macha allah cheikh abdou lahad mbàkke takuloon na ko lool ndax kat képp ku mu bokkal xaadim rasuul tudde nga ko doom ndax fulla ji ka daa wax ne su ma waxee lu ñu war a def ñu ne day xuloo su ma waxee dëgg ñu ne daa mer di cheikh abdul ahad mbàkke mi ngi génn àdduna bisub altene fukki fan nag juróom ci weer wi di weeru digg ci atum 1409 ci gàddaay gi altene fukki fan ak juróom ci weer wi di weeru digg atum 1409 ci gàddaay gi dëppook muy lundi 19 juin 1989 lundi 19 juin 1989 ci dëkk bi mu mujjee sanc ci nekkinam di Touba Belal bisub keroog bi mu génnee àdduna moom sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke rakkam ji sëriñ Soye bu Mbacke moo woolu ko ñu wax sëriñ Habibu Mbacke imam ak ku ñu wax sëriñ Mohamed Hazasi nekkoon imaam itam nag ci dëkk boobu nag di Touba Belal ñaari jëmm yooyu nag ñoo taxawu sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ginnaaw bi nag lañ ko jëlee nag dëkk boobu nag di Touba Belal indi ko nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba rakkam sëriñ Touba Cheikh Abdou Khadir Mbacke moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam nag ci bërëb nag bu mu fonkoon nag te tabaxaloon ko sëriñ Touba Khadim Rasoul muy daaray kaamil ay xalifaam nag nii la tëddee moom sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke kam faye waajuram wa nag di sëriñ Touba Khadim Rasoul di sëriñ Ahmadou Mbacke ñu gën koo xam ci sëriñ Sidi Mbacke moo ko wuutu ba nëgëni moom sëriñ Ahmadou Mbacke moom nag ñu koo xam ci sëriñ Sidi Abdou Lahad Mbacke nag ñu borom guddal aw fanam ak mbooleem nag ñim séqal sëriñ Abdul Ahad Mbàkke te suñ borom nag yàggal ko nag ci toogaayu sëriñ Abdul Ahad Mbàkke bi ndax sag la itim nag ci yoon wi sëriñ Tuubaa Seex Abdul Ahad nag am na bis nag buñ koy fàttaliku ci li ñu tudde nag ak màggal ndax ñaar fukki fan ñett nag ci weer wii nag di weeru korité bis boobu nag la ak njabootam jàpp na ngir nag di ko ci fàttaliku moo dëppoog itim nag bis bi mu feeñoon jamono nag ci 1914 ci njaareem li ko dalee nag ci 1990 nag ba nëgën itim nag ñi ngi koy màggal ñuy ñaan ca ka sëriñ Tuubaa Seexul Xadim tudde woon Abdul Ahad laata ka feeñoon jamono te sëriñ tubaa seexul xadim doon wax ne am na ci moom yaakaar yàlla nañu ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram te taas ñuy tiim nag ci barkeem lii di jafe-jafe réew mi tim yàlla na ko suñ borom saafara ci darajey abdul ahad amin